sax ci. par rapport ak yeew yi. par rapport euh, yeew yi mais ñu dem ci a mhm. mais bi ñu demee ba nga xam ne léegi dañu am ay problème ñu ne léegi dootuñu si A4 ku nekk ñi nga àndal ngay indi ñu ne déedéet bi ñu ko posé xam lu ma leen wax. Mhm. dama ne mën leen ñëw ci sëy ak ak ak ak ak ak grossesse da di bàyyi ba wasin ñu soog leen a takk dangeen bari bagage <laughs> et en définitive surtout parce bi ñu woowee. ne dañuy créer Yewwi comme da ngeen di bañ ko génn mais ca réunion ba ñu doon signé ñi bokk mais Bougane génn na ci saa si. c'est vrai il n'a pas attendu waaw ngoonte war ngeen bañ ko génn damay mais parce que bi mu gisul mu xam dem na am na ku ñëw pour bokk ñu ne ko doo bokk est que wax ngeen ko. Mm-hmm. Abdou Mbacke dafa ñëw dafay bokk Yewwi ñu ne ko non doo bokk parce que da nga mm-hmm. ñu dàq ko waaw ñun dañu ne bi ñu laata commencé ni ñun ñun bokkuñu. mais Sénégal jafe na ah. na nañu da ngeen a bëggoon a. mais jël li ëpp ci nar wi. non c'est pas vrai c'est ñoom ñu ngi may dégg c'est totalement faux xam nga am na sax benn journaliste boo toog na ci rajo ma toog mooy wax naan voilà ñun on PDS a tout fait pour pour indi pour indi Pastef nous c'est pratiquement c'est Pastef qui nous a tiré je le dis encore dans la situation actuelle. et le Sénégal me regarde on a fait des réunions importantes. lu éclairci loo xam ne su sunu sunu bët sunu sunu bët feeñee ba ñu ne Sonko mu wax ñu ne ne boo leen dee ngeen wax président Abdoulaye ne ko non seulement d'accord naa ci ñu ànd local ak législative mais bu bëggee sax à la présidentielle ñu ñu jàppalante au deuxième tour. il est allé jusqu'à proposer sax oui oui je suis très formel et je parle devant tous les leaders formel moo lay woon donc avancé mais après dafa am loo xam ne ñun mënuñu ko nangu du ñu mënul nangu. bi mu ko seeyaale ci sëy bi du sotti day ci fase lañ ñu tàggoo. et pourtant à un moment vous vous êtes retrouvés. parce que effectivement woowaat nañu xam ne dañu war a ànd dans certaines positions notamment dans les départ certains départements ku nekk may sa borom et nous avons le résultat qu'il y a am. li am mm-hmm. après le résultat ngeen jëlaat seen liberté. mais loolu la ñu waxoon dañu ne woon moo def nañu pourtant conférence de presse. wax ne coalition électorale bi jeex na. nous allons entrer dans une convergence de législature. Mm-hmm. ce sont les mots de Déthié Fall. man nekkuma fa moom moo wax. keroog bi may ñëw si émission bi dama ne lan la Déthié wax ñu ne ma lii la wax ma dégluwaat ko ne Lamine Thiam bindal ma li Déthié wax ma ñëw ci émission ma ne Déthié nee na dañuy dem vers une con c'est-à-dire lépp ci législature bi dañ koy waxtaanee xam nga lan moo lay woon suñu avancement ci loolu. Mhm. aujourd'hui Elisabeth Borne chaque loi il cherche une majorité. Mm bi la ñu waroon toll ñun. c'est ce que c'est ce que le professeur Amadou Ka de les diver les les les mën na changer le matin comme le soir en mm. fonction de la loi en présence ñu ne euh, ñoom a des lois qui sont passées avec quatre-vingt-cinq quatre-vingt-sept voix la loi de finances mm-hmm. le ministère à trois quatre voix. yéen a def différence que c'était ça quand les positions sont communes on est ensemble quand nous avons des divergences seen choix lu koy motiver seen choix surtout à l'Assemblée nationale parce que fa la gars commencé di leen critiquer ñi ngeen àndaloon muy waa Yewwi d'abord d'abord d'abord euh, ce qu'on a appelé convergence de convergence de législature ñuy converger kañ dañuy daje ci point mais bu ñu xamul point bi ñuy daje du ñu ànd ñoom seen wax laay wax ah aussi simple on est allé euh, excusez-moi le terme, mais qu'on a, a construit de manière idiote. Mmh. En mettant tous les œufs dans le même panier. C'est terminé. <laughs> c'est un problème. On n'en a pas discuté. Quels sont les tenants loolu ñàkk la si seen parce que man nañ motion de censure au départ mën nañ ko bañ a am te loolu moo gënoon wóor. mën nañu am beneen chance. oui on avait des chances. Ouais. mais les chances qu'on a on les règle pas du dehors on les règle ils vous ont ils vous ont pas impliqué en fait pour mën a tirer le meilleur de vous. mais mais loolu wax ko. Mhm. wax nañ ko. pourtant ñoom certains d'entre eux disaient que le PDS a mordu euh, mais bi nga xam ne moom moo ko jox mu lekk. vous pensez que. non man je ne le pense pas. Euh, non je te dis je ne pense pas que vous puissiez penser. Mm -hmm. que euh, aurait pu avoir des députés à Kébémer. <laughs> mënul woon nekk Antoine Mbacké mhm. may yàppu tabaski. ñu yekkal leen cere tam xarit gagnant gagnant